kenn dootu kon naa tàmbale waaye digganteem ak soppeem yeeg am di jàmm yi tey Modou di sargal ñi nga xamante ni mooy Gambien yi comme ni ñu koy defee saa ne saa nga ñëw teew fi waaye balaa boobu dama bàyyi nga nuyoog moo ko internet yi ak sa digganteeg soppe yi. Ah, d' abord dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi di santaat yàlla bu baax a baax rabbi samawaati wal ardi yàlla sunu borom bi nga xamante ni kum jàmmal nga am jàmm. ku mu may ndam nga am ndam ñu ngi koy santaat yàlla ci ndam lu rëy li ñu defal ñu ngi santaat bu baax a baax di santaat nag ki nga xamante ni muy kenn ci ñun muy Serigne Saliou doon suñu wasila di suñu ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeel ak mboolem kilifa diina gu ci réew mi rek ñu ngi lay sant di la bu baax a baax a baax di sant soppe yëpp xarit yeeg am di jàmm yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm. dañu ne fii moom comme li ñu wax rek yéen amuñu seen fay boo gisee ñu ñëw parce que Modou mu ngi départ sax war a ñëw dafa am fu mu jaar rek xam naa léegi mu yegsi ci kàttanu yàlla ndax ñu ñëw daje fi comme que defoon nañ ko bii paase xam nga yàlla dogal ñu defoon ko ci mbégte waa defaat ko nii ci mbégte kon dañuy santaat yàlla rek julliwaat ci yonent bu baax a baax di leen gërëm bu baax yéen itam. saa sa digganteeg soppe bi nga duggee ñi ngi lay nekk di photo ak yow. ak ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan si internet yi defe naa ni sa sa sa sa xar kanam sa vidéo bu ñu ko dugalee gars yi dootuñu am jàmm ak ay allo jox la ma numéro Sa Touba loolu lan moo ko def si saa. waaw mais yàlla la rek xam nga saa ni mu mel defu ko boppam yàlla moo ko def li ne ci man it yàlla moo ko ci def du lu doomu aadama jël def ko ci man wala dara yàlla la neex mu def ko ci man dama koy sant yàlla rek te man du tirise mm-hmm. am naa fu la ji tonne du ma mënul ci nit dama naan ko nga dem seeti man du ma tricher wax dëgg yàlla gis nga moo may woo nii moo lay war a xam ne làmb xam nga la Cheikh Niang moo koy woo nii barke Serigne Sall <laughs> allo Cheikh bi <laughs> dégg wala de waa waa waa yow de sama nijaay nga yow dina faaw faaw ma am nu ma def ak <laughs> la wóol la wóol léegi damay def interview jërëjëf <laughs> waaw ji nga gis nga lii mooy sport dégg nga wax ku daan sa nijaay war koo dam moo lay war a xam ne seq nañu relation yu rafet ma ak moom ndax xamul na xamuñu moom permettre naa ko mu wax ci man lu ko neex parce que keroog dañuy waxtaan téléphone ma paas ko sama yaay mu waxtaan ak sama yaay sama yaay ne ko man de sama yaay ñang la sant mu daal ne ko mu ne moom Cheikh daan na ma kon man Sa Touba nijaayam laa xam nga ma këf téléphone bi sama yaay na ko bu ko leeral luñ bokk bàyyil balaa mujj jàll ñu door a wax liñ bokk quoi xam xam ne day sport day boole mais waru tàqale lii man la waroon man maa ko waroon woo téléphone mais ci suba ba léegi aw ma temps dama jàppoon muy nit ku baax nag seex Niang xol bi dara newu mais daa mën nitam te àdduna noonu la da ngay mën sa nit sa nit lu nekk nekk ci fan si ne comme li ngay wax rek sama diggante ak ñoom sama yaram sax day daw wallaahi ndax gis naa li ñuy daj ngir man dem bi may jógee stade sama yaram dafa daw may gis ay nit yoo xam ne dawee stade topp sama oto ba ci ba parcelle topp sama tur bi saa tubaa jërëjëf joo xam ne man tuma sax comprendre quoi mais nag sant yàlla daal mm-hmm. lépp yàlla la rek dañuy sant yàlla di leen di leen jéggulu bu baax nag ñu leen jégalu ci coono yi yëpp rek aw ma seen fay yàlla rek laa leen di bàyyee yàlla mi am seen fay yàlla na ma leen fayal barki Seydina Mohamed. barki Seydina Mohamed gis nga seen diggante ki nga xamante ne moo di Cheikh Niang moo woote léegi léegi di Maxi Boy Niang gis ngeen ko nee na ndijaay la si moom. gis ngeen kàddu yu rafet yi nga xamante ni mooy teg na ko ci kaw ko nga xamante ni moo di Cheikh Niang di mag ci Boy Niang mais damay ñëwaat saa si li nga xamante ni moo di combat bi wàccaay bi metti na ak naka ngeen koo dundee. waaw xam nga làmb nag moom benn yombu ci. soo koy préparé faw faw mu métti. mais lépp yomb na yàlla. coono yi lu mu mett métti métti après day mujj oyof rek. waaw yàlla lépp yomb na ko daal vraiment wax yàlla sant nañ it sant nañ yàlla bu baax a baax di ci yonent bi nag di gërëm suñu waajur waaye def mu sotti yàlla la neex yàlla moo ànd ak ñun booy ñaa le premier janvier bii ñu jënd nii daa bëre yàlla may ko ci ndam kon bu ñëwee ci bii bëree yàlla xañ ko na santaat yàlla seetaan nañ papam dafa wax sama yaram dafa daw per de Gaulle jullit àqan la parce que nee na dafa siyaare ji yonent bi ba ñëw ku ne xam na ne Père de Gaulle bu booy ñaa daan bëri day sol blouson ne ci kanam di ta di bàkku di def lépp mais nee na bi mu siyaare ji yonent bi ak léegi jomb na def leen jomb na saaga jomb na wax nit lu ñaaw jomb na itam def luñ koy xeebee te loolu nit ñi teg nañ seen bët te li ma leen wax rek booy ñaar déggul mooy baayam sañ na ko def lu ko neex wax ko lu ko neex yoonu kenn newu ci bu ci kenn di wax te it journalistes yi nañuy xool li ñuy bind nañuy xool li ñuy tiitare parce que itam am na loo xam ne nga def ko ba pare nit ñi di la ŋàññi nga xam ne lii yow yaa ko def te ngay gor doonut lu rafet dañ koy bàyyi xel parce que dëgg mooy lépp dëgg moo gën loo mën a am ci àdduna del dox ci dëgg rek di ko rafetal sa liggéey bu seetee rek mooy loolu mais nga dugal dara nit xool ko ba pare ne ah cam des fois nga gis ñu xas journaliste yi te kenn nit moo koy waral nga dégg ñu ne journaliste ñoo yem fekk ne yemuñu dañuy rafetal liggéey bi boo jëlee jee nit sax bu waxee ci nit te tuddul kooku bul nangoo tiitire kooku bañal loolu baa moom mi nga xam ne mooy wax ci nit kooku nga jël na jël ay engagement am ne diw laay waxal boobaa mun ngeen ko mais di dugal loo xamante ni tey leer na lii mooy doon lu rafet daal di leen ñaanal jàmm nag Gambien yi gis nañ seen taxawaay ñu jógee sori na vraiment amuñu seen fay daal wax dëgg yàlla. jege si dama seeti ki nga mooy sëñ Mor mu ne ma nu combat bi leeree maanaam combat Ama Baldé ak Lo sax leerewu wu ko woon mel ni da toogoon ci lu leer mel ni ndam li daa am lu leen ko won mu tudd tamit benn mbir ne ma booy ña nag bu ñuul ak bu xonq bu mu saraxe am saa loolu boo ñu ko doon décortiquer ci ay waxu sëñ moor tey tey fan lañ mën a féetoo ci wax jooju. xam nga man ñaan kër yëpp samay nawle lañ kenn ku ne li la yàlla defal dama koo nangu dama la koy nangul ndax wax sa mbaaxu waaye wàññiwul sa mbaax dara tey sëñ Mor lu may wax ci moom yokk ko wàññiw ko ndax li ko yàlla defal defal na ko ko rek kenn ku ne ak li la yàlla may ni suñ baaraam yi sutantee noonu la may yi wutee ndax dégg ma yàlla mooy xool lu ko neex def ko ci jaamam yàlla moo ko may tànn ko mu doon ñaankat dañ koy ñaanal yàlla yàlla di gën a yokk xam-xamam yàlla gën koo suturaal parce que ñu bokkul teen ñooy laxu sooy faj te tuxkat yi sax ñu ngi mayante mee ko sëñ Mor sama nit la dañuy dem lente seexu lu bari wax dëgg yàlla yàlla may ko yàlla it suturaal na ko li mu doon wax ci làmb jëpp nit ñi gis nañ ko kon alhamdulilah ndax su waxee nit ñi gis ko mel na na man maa wax nit ñi gis ko man su ma waxee nit ñi ko mel na na moom moo wax nit ñi gis ko ndax ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk yéene kon dañuy santaat yàlla rek ci yàlla lañ doon ñaan ñun ñëpp rek wallaahi keroog yéen maaraawu Modou Lo yi yéen ay roi de arènes maara yi loolu bi ngeen koy wax du question Modou moo nekk roi des arènes rek mais da ngeen jàpp ni yéen yéen a fi ne. mais xam nga boobu coow li daa bëri nag am ñu jënn di wax ay seen coalition bi danañ ko tas fii coalition amu fi yéene moo fi am kenn ku ne ak xam nga Modou moo ñu ko ji. mais xam nga mooy li may wax rek làmb jërut wax ju ñaaw jërut yenn quoi nañ koy rafetal rek parce que day jeex. mais man li may wax rek man du ma toppante kenn baal naa ñëpp àq di baalu ñëpp àq vraiment wallaahi maa ngi baalu ñëpp àq daal loolu du dara làmb la rek yàlla daal mooy xool lu ko neex def ko ci. yàlla nag moo ñu boole suñuy xol ànd ñuy xàccandoo di dóorandoo rek loolu la yàlla bëgg ñu koy def mu ñuy may ndam nga jubóo gi moo fi nekk. lu mën loo tabaandi bu ñu bëree nan ngay def waaw yow loolu wax ju yàqu la man li ma leen wax leer na Modou Lo ku muy bëreel ci àddina ci àddina laa la ku muy bëreel ci Modou lañ may jël li ma motloo defal benn mbër defaluma ko ci àdduna Tapha Tine ku mu mën di bëreel ci àdduna ku dul Modou itam ci kàttanu yàlla ak yonent bi moom itam dinaa ko jàppale am de parce que bawol bawol la man mbër yëpp man may seul marab bu nekk ci làmb ji aw ma sens interdit ci benn mbër maa fi nekk sëriñ su bari da ngay dégg ñu ne la mbër bii rek laay ñaanal nangam nangam sa liggéey nga yor Modou Lo laa yemalewut ak ku yàlla bind waaye keneen kuñ gis ma àndal bu ma fayee dama koy liggéeyal ndax dégg bu baax ma la maa fi nekk ci làmb ànd fekk Eumeu ci làmb ànd fekk Balla ci làmb ànd fekk Tapha ci làmb ànd fekk Modou ci làmb ànd fekk Arafas ci làmb ànd fekk Zarko ci làmb tey saison làmb bi si rëy góor a soob dama ànd ak moom ci làmb Garga 2 dama ànd ak moom ci làmb tey mun nañ ne tey bis mag yi yëpp ci làmb bi dem naa ci tey yàlla suturaal ma ci kon loolu sant yàlla la li ma war a def ci làmb def naa ko pour man amatuma lu may prouver ci làmb wax dëgg yàlla bu dee ci làmb amatul lu ma ci war a luñ naan Sa Touba def na lii wala def ko déedéet pour man moom wax dëgg yàlla amatuma lu may prouver ci làmb parce que saison boo xam ne yaakaar naa bi ñu mujjee wax man ak Ibakan ñu ngi woon ci 96 combats te diggante bi amaat naa fi 8 combats yoo xam ne yëpp yàlla suturaal na ma ci kon loolu nan la sant yàlla la parce que ñoon say jàmbaar bëri nañ ko ci diggante bi day ñoo xam ne samay mbër yàlla suturaal leen may leen ci ndam ñoom ñëpp kon loolu sant la sant naa bu baax man li may wax rek terewuma kenn wax waaye lu neex waay waxal. Sénégal yi yor seen bët rek di ma àtteeg ñoom yàllaa ñu fi tontu ma kenn waxuma kenn dara mais yàllaa mooy àtteeg ku mën a doon sant yàlla daal affaire yi moom comme li ñuy wax rek bu yoon jeexut wax suuf du jeex ñoo ngi fi maa ngi fi ñu doxal rek. mais ça des fois ñu dégg si ay wax ci mbedd mi naan sa Touba du sëriñu Modou Lo sëñ Massila du sëriñu Modou sëñ Mor du sëriñu Modou Lo sëriñu Modou ngi seen kër yi. làqatu yooyu wax naka ngeen koy déggee. xam nga lu ñëpp bokk lu ci waaye am mu doy. te yéen ñi sax ci ñaankat yi ngeen bokk parce que bu Modou bëree da ngeen koy ñaanal yàlla te Modou wax na ko keroog open press ba dafa leer dana maa ngi nuyu ñii nga xam ne du ma wax sax samay sëriñ samay xarit lañu laa leen jàppee ndax avant dara du dara la te da ko seex ak ñun nit ñi kenn mënu leen tee wax waaye mais nag sëñ bi luñ mayut yonent bi man tamit mënuñ ma koo may nag nanguluñ yonente bi ah yàlla mi ñu sàkk am na ñu ko nangulul ma bëgg man ñu nangul ma loolu c'est impossible faaw ñu am taxaw samay soppe ñoo ëpp samay noon man gëm dama ne ñi ma bëgg ñoo ëpp ñi ma bañ que chaque jour ma seetaan sama téléphone sama yaram daw chaque jour nit vocal ma sama yaram daw barke alxuraan nit daf may woo sax am yéene yees lu ci man ba daf may daf may diis ba dama lay mujj jël yóbbu la Touba nga yees lu ma ñibbi si waat parce que attanu ma njëbbal man te ma xam ne cofeel la barke Serigne Saliou moo tax am na yoo xam ne daal dérangé wu ñu daal wax dëgg yàlla ay ñiy wax ci mbedd mi yow nit bu lay dàq jotuloo lu mu for sànni la ko ku ne ci kanam rek la ñuy la ñuy am den ki ne sa ginnaaw doo ko corné ki ci kanam ngay corné loolu la rek man loolu laa ko jàppee dama jàpp ne mayu yàlla suñu borom la faaw nit ñi wax mënu ma ko bañ a ah. wallaay laa si mënu ma ko bañ monsieur la dañuy tëj defe naa ni waxtu bi xoj nañu si ndax temps amul te fi mu moo du Modou lépp mu ñëw waaye dañ lay bàyyi nga tàggoog soppe yi rek comme ni ma ko waxee sànq ni ma ko tijjee monsieur la buñ ko dugalee soppe yi da gis ni ñuy réagir di woote si service commercial u chaîne yi mosi la la kii Sa Touba la lay laal lu muy laal loolu si may ñun ñi man wax naa leen ba tey aw ma secret bu dul Serigne Saliou man sama secret Serigne Saliou la man aw ma leneen dama leen koy wax lu benn ñaar yàlla mooy xool lu ko neex def li mayu yàlla suñu borom bi la rek du leneen ah ñun dara dérangé wu de benn star laa am sama adduna muy Serigne Saliou man waruma star waruma keneen ku mu mën a doon ci adduna nag barke Serigne Touba lu dama bëgg mu dugg ci bopp nit ñi ay yooyu yëpp du dara nit ñi loo leen wan loolu lañ lay jàppee dama leen wan yëg-yëg wan leen itam pas-pas wan leen itam lu dëggu ci man du ma triser ñu xam ne kii du triser ñu jàpp ko loolu kese la du dara parce que man sama nit lu mu nekk dama cay nekk wallahi lazim te Modou sama nit la barke Serigne Saliou non sama nit la du du du sax yooyu yi nii duñ mën a wax que li may wax rek chaque jour damay jàpp ne maa ko ameel bor ba léegi billaahi Modou dama jàpp ne ba léegi nii dama ko ameel bor. yow yaa numéro waaw non man moom wax dëgg yàlla ba léegi taalibe laa rek man sàkku ma doon ay kii ak yooyu man daal maa ngi daal maa ngi nii rek.